mbokk internet yi taw feex Production bu leen fàtte bës cloche bi abonné wu si suñu ay vidéo actualité de semaine bokk na ci également euh, lu am solo waxoon nañ ko ci suñu chronique bee wees ci taxawaay bi Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Bassir euh, di ñaana suñu borom may ko wér kàtt na ku baax a baax euh, ba lépp lu mu naan ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba Khadimou Rassoul maamam joojee mu def ko nu kawe njootam ànd ko ak njaboot gi yëpp. Euh, taxawaay boobee mu am nag ba jukki juróom fukki ci million ngir jàppale ko way lor yi ci euh, jax-jax gi amoon fitna gi di manifestation yi euh, duñ ci également buñ ñu jugee ci sant Serigne Mountakha Mbacké ñaanal ko bu baax dañuy sant tamit waa bu Tarqiyyah ci njiitalu Serigne Youssou Diop Serigne Youssou Diop ànd ko kuréelu bu Tarqiyyah yëpp ak mboolem daare yi nga xam ne ñu ànd ci liggéey bi def ci liggéey bu mucc ayib loolu gis nañ ñëw nañ Ndakaaru dem nañ Ziguinchor wër nañ ci dans toutes les euh, localités yi nga xam ne euh, elles sont touchées euh, par ces par ces manifestations ces récentes manifestations gis nañ bu baax a baax l'acte qui a été posé la façon de distribuer également l'aide qui a été donc attribuée à ces à ces à ces victimes en venant de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou loolu li ma ciy wax aussi mooy c'est un signal fort pour nos dirigeants dégg nañ fi ceeb bi bu ñu fi nee ceeb bi mbel mbel ñi am na amuñ ñi jël ko def ko marché à gré à gré seen i marché jox ñee njuuj njaaj xaalis bi ñi ne wuy jil yoon of nag duma dem nangam sangam facture yi kenn gis ko ay comité de suivi dialogue kii euh, comité de suivi euh, pour euh, force Covid 19 nangam sangam ba léegi coow li ne cobbee kenn waxagu fi facture bu leer kenn waxagu fi xaalis bu leer ñu bëri am na ñoo xam ne ni ceeb ba gisuñ ko teguñ ko bët à bi ñu ko gisee ci image télé waaw lu toll juróom fukki million nga génn ko di ko séddale ay loru te déggoo coow amul ku woote ne aw ma amul ku fippu lu yaakaar na loolu taxawaay la boo xam ne moo tax ma ne maa ngi ko keroog ma ne Sëñ Mountakha c'est une référence pour yi nga xam te dañ leen dénk ngir ñu xam ne li ñu yor dañ leen ko dénk également dañ ko war a joxaat ñi ko moom waruñ di defal dara naan danga koy may souvent ma dégg eh, état ne ñu may nang wala ñu dimbali nangam sax amu baat boobu sax dañ ko war a xeex aide amu ci amu ci parce que ñoo ko moom te xoolal ma lii sëriñ Mountakha moo jël xaalisam boo xamante ni mënoon na ko yokk waat ci jumaa ja mënoon na koo defee leneen mais di ko jël dimbali askan wi te du lu bees ci moom. gis nañ Covid ba mu fa amee na mu jàppe woon centre de traitement yi taxawu leen ña fa nekk yóbbu leen añ toppatoo leen way tawaat yi taxawaay bu am solo ba yàggul dara ak ñi am insuffisance rénale te amoon tey jii yeneen yoo xam ne mën na faa def te kenn du ko ci laaj benn compte tey jii nga gis bu baax ni ñuy séddalee xaalis bi te coo jibul tey ñu gis Hizbut Tarqiyyah taxawaay bu am solo bi ñu taxaw wane dëgg ne ah suñ aatu yàlla na yàlla yërëm nam woon ci wetu Serigne Mountakha Mbacké tekk laxaasaayam bi noonee la ko Serigne Youssou Diop di defee ànd ko waa daara bi yëpp te lépp lu mun Mountakha di deflu duñ ca xaar duñ ca xaar kenn njëkk leen ca dañ cay jiitu def ci seen kéemtalaay kàttan wax dëgg yàlla mënoon nañ koo jël xaalis bi def ko feneen te coow du jib mais dañ ko jël séq ay jiigo déplacé wu dem ba ci famille yi lii mooy taxawaayu nit en tant que nit humanisme nii moo koy wane l'humanité humanisme patriotisme confiance contrat de confiance lii moo koy joxe lii mooy acte de signature du contrat de confiance ay waaye ngir yàlla li laay war a Sénégal war nañu mën a am jàmm war nañu mën a def solidarité dimbalante yàlla suñu borom ba muy jox ñii am mu xañ ñii daf ci séntu woon solidarité ngir ki ñàkk gëm yàlla ne ñàkk na xëy na bés dinaa ñëw suñu borom dénk ma ndax yàlla mayu day dénk ki am suñu borom jox ko mu bañ a beew xam ne lii ñu ma jox ëllëg suñu borom na ko fuqate si mun taxa tànk yooyu rek lay doxee waa Hizbut yee nag di ci def liggéey bu mucc ay gàcce ngalaama ñoom gàcce ngalaam Serigne Youssou Diop di ko ñaanal ca te kanam ba liggéey bi nga xamante ni sëñ Atou mi ngi ko àndoon ak ñoom moom mu ànd ko ñi mu àndal ñi ci waa daara jëkk ñëpp ak mboole mbokk taalibe yi ba lépp lu ñuy rek woote ci tool bu kër Serigne Touba bi kenn bañ leen ci ëppale waar kenn gën leen cee bana mën a bay gàcc nga di leen woo rek bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di waajtaay weeru yi ndax xam naa ne buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm bu soobee suñu waroom àjjuma bi ñëw dinañ fekk ci weeru koor yi Euh, di wax ne gis nañ bu baax a baax taxawaay bi nga xam te ni euh, ñu ngi koy amal rawatina ci dëkk bu sell ba tubaa def nañ ci ay ndaje ngir waxtaan bu baax ndax ku ne xam ne ni woote respect des mesures barrières yi ndax gis nañ ne koor daaw mi ngi ñu fekkoon ci ay couvre-feu yooyu noonu état de d'urgence tey jii euh, mu fekk ci macha allah kenn ku ci tinki nañ la tënkuñu kenn. waaye tëriwul suñ bi delluwul ginnaaw sëñ Mountakha Mbacké Bassirou ma ngay wootaat taalibe yi ñu gën a sàmmanteeg ndénkaane waa Kër Docteur euh, le respect des mesures barrières euh, gën a xam tamit ndax ku ne xam ne weer bu ñëwee dañ ci durus ay xasaay dañ ci amal ay xew-xew ay programme yu am solo ay conférence ak yu ni mel wante taa taamu na ci tamit ñu gën a sàmmanteeg distanciation physique bi ak respect mesures barrières yi topp ndénkaane waa Kër kon loolu day nekk signal bu fort a fort am solo boo xam ne képp ku mën ak koo mën di doon ngir fexe ba dara luy gaañ si réew mi euh, bu bu ca bu ca bu ca bu ca bokk maanaam lu koy defal rek moo lay tax a jóg mooy sa itte kon loolu di lu am solo di woote boo xamante ni amal nañ ko ngir jox ñëpp appel ñu xam ne mbas mi mi ngi fi euh, waaye li ko fi mën a jëlee mooy ñu mm, mbas ko mu dem ñu maytu ko tey gën a mën a rek respecte mesures barrières yi loolu yaakaar naa bu ñu ko defee dinañ jëm dinañ dinañu jëmale kanam di santaat bu baax a baax taxaw Serigne Mountakha Mbacké Bassirou di santaat bu baax a baax taxawaay pour Hizbut Tarqiyyah waaye santaat également taxawaay taalibe yi ndax it ñoom yi kenn du ñoom ndax gis nañ bu baax a baax cër bi ñu joxee benn cadre rek la ñuy jëfee ku wax topp sa ginnaaw di santaal bu baax a baax di xam ne koor gi ñu ci dugg daañu ci indi nag ay programme yu mucc ayib daañu ci indi ay conférence ay waxtaan daañ leen toppal lépp luy information ci chahru ramadan weeru sell sunu borom wi incha allahu rabbi dara duñ ci rëcc génn nañ si rajab ñu ngi dugg ci ramadan weer sell woowu kon di leen rek ndokkal di leen ci balu àq di leen balu ne Tawfekh Production mi ngi ñëw ak yu bees tàq ak yu mucc ayib nara lawal ay banqaasam fii bi diaspora bi ak àdduna wëngal këpp dara du leen rëccib ci lépp luy ay production yi ñuy def incha allah la ko mot ànd ko Mourtala Gaye ak équipe technique bi yëpp ngir di leen euh, toppal bu baax a baax xeexoo yi incha allah di leen ñaan bu baax di leen ziar di leen bal àq di leen balu àq di ñaan yàlla suñu borom mi ñu boole moom te kenn di moom tey borom lépp ak ñëpp ak fépp te def